Souleymane Assou Diagne Souleymane Assou Diagne nag ah ci coalition bu mag laa nar a àndal pour dem moom ci boppam doomu barñi la dimanche bi incha allah ci lay samp ndëngëm ci digg pencum Bargny te doomu barñi la nee naa la wax dëgg yàlla waa barñi ñoo ko génne na ko yaa ñu doy docteur Souleymane Assou Diagne mu fas yéene nag. samp ndëndëm ca penc ba nga xam ne problème yu mag yëpp fa nañ rek réglé ci biir Bargny penc boobu waa Bargny fa nañ waxtaanee mag ñi fa nañ koy waxtaanee lépp loo xam ne nag aada ak cosaan ci biir Bargny war wara ci dëkk ba fa nañ koy waxtaanee moom fan la tàmm nag pour samp fa ndëndëm incha allah dimanche bi di Souleymane Assou Diagne ndax moo leen mën wara a leen ñu seeti Souleymane Assou Diagne candidat bu bees bi nga xam ne moom la waa bar ñi génne na ko yaay ñuy jiite ñu seeti ko. Ousmane Astou jërëjëf. yaa leen jërëjëf. Astou jërëjëf. jërëjëf euh, kontaan naa euh, vraiment ci choix bi nga xam ne am ngeen ko. Euh, parce que tamit di def ci suuf ngeen koy wax ci kaw xaaruma bat lamp yi tàkk ma def ko dama koy def en tant que doomu Bargny bëgg Bargny yaroo Bargny màggee Bargny xam li barni war a mën a mel euh, Bargny dañu toog ci or xamuñu ko Bargny normalement mooy dëkk bi nga xam ne moo war a njëkk am développement local bu mag parce que boo xoolee barni lu fi nekk ci euh, euh, taxe boo xam ne war nañ ko am jëm ci Sococim bi dafa jéggi dayoo normalement ñun waa Bargny bu ñu bëggee tabax saaku ciment bi ñi ko waa dakaar jëndee war a Louga ñun waruñ cee fekk ndax si suufu Bargny la ciment bi di fekk baax si lay suqalikoo génn di dem ba Afrique ñu war cee gis suñu bopp ñun ba pare ci côté utilisation personnel humaine waaye tamit ci ressource bi nga xam ne moom mooy taxe yi war a dugg ci Bargny ñu war cee am leneen. Euh, Bargny euh, boo xoolee ci euh, développement économie ak industriel bokk na ci dëkk boo xam ne ñun ñoo njëkk am industrie bu mag bu taxaw boo xam ne dépassé na ci Sénégal ba génn Afrique euh, bataa moo fi nekkoon mooy daal société bi doon defar dal tey booy entré Bargny moom ngay gis euh, boo rombee Bargny gis suñu yaay yi toog di lakk ay géej ak ay yéet saxaas di leen dugg xet gi di leen topp seen giir dund loolu war nañ ko moderniser ba mu nekk ci beneen substance xale yi xale yi nag xale yi ñoom ñoo wax na ne ñuy génn mhm. ñoo ne dañu bëgg wax mhm. waaye xale yi bu ñu waxul sax wax dëgg yàlla mag ñi gis nañu xale yi fekke nañu eh, kon ñu bàyyi euh, euh, bàyyi dogal mu daal di sànni ci kanam bàyyi dogal waaw loolu dafa see loolu parce que mm. yow baa ñëwee ba ootee mm-hmm. si pénc mi nga xam ne ne ñun askanam lébu ñun cosaan la xam tey bala neexoon tey nga oote si bureau wala feneen ak feneen. mais defulaa nga. da nga jël waa dëkk bi bëggal leen sa bopp. te yàlla tax. maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee gune mm. yow yaa ñu daan fayal ñu école. Mm. di ñu jàppale. wax dëgg yàlla. Mm. di ñu jàppale chaque jour. kon nag yow sa wàllu boppa tey ñun ñoo la bëggal ñu boppa waaw waaw. te doguma leen doguma leen sax li tax doguma leen. mooy géeju Bargny gi. normalement Bargny dafa war a am port. waaw benn port junior boo xam ne dafay tax ñu am escale. Mhm. Euh, bateau taxi le président Ablaye Wade waxoon et je pense que waroon na nekk tamit gaar bi gën a mag bi nga xam ne moom la bateau di costé euh, large bi ñu am. ndox bi nga xam ne mu ngi yéeg commencé nag suñu kër war nañu mun a am ay grenier yi nga xam ne dafay nekk euh, di tënk ndoxu géej gi mu fekk si population yi et loolu ñoom war nañ ko def yàgg na parce que soo ko sim du fi nekk ak yeneen ñoo xam ne ñu ngi fi euh, du ñu taxaw waa Bargny et loolu dafa jeex ñun nag ñoo toog ci or ba pare jàppee suñu bopp di dundu euh, dund përëm non non c'est c'est dépassé il faut ñu ñam ñeneen xam li ñuy saf te man ku ma ñam xam li may saf li may saf mooy jàppale ci sutura sutura dundal ci sutura def ci sutura ndax xale yi wax nañ ko. dooguma ko sax ko moom ba waxee loolu dinañ ko gëm. parce que kii dafa jox mool yi seen ab man maa ngay fàttaliku. fëgg na ma ko xaaju guddi. moom moteur ab gaal yaaxu. moom mii moo ma def. jarul ko wallaay wallaay bu ma demee géej di yóbbul sama waa kër. Ah, lu ñu añeex lu ñu reeree. yàlla kii wa man da dama lay sant di la gërëm li ngay def si suuf moo waxal jarul waxal jarul yàlla la yàlla ngay xëccu. incha allahu rabbi waa Bargny yëpp def wenn say waxal waay jar ko tàcc leen loolu euh, euh, kon dama ne bu dee làmb la am na nu ma dugg see sànq ngeen bàkk ma ko ma ne teg naa sama ndënd dimanche incha allah ci kàttun yàlla ci bar Bargny ca laay samp sama ndëgg te ragalu ma jàkkaarloo kenn ragalu ma daw ak kenn ku ne xam nga kalamaan danga ko doon nangu Alassane Seck Alassane Ndiaye Souleymane lañu àndal lañu laaj dañ ay lañu laaj ay ay la ñu